waaw xam nga maa ngi sant yàlla ñëpp gis nañ ne temps yi passé amoon na touti ay jakk déggoo bu am union des chambres de commerce union des chambres de commerce du Serigne boobu c'est 14 chambres yo xam ne ni état du Sénégal mo décidé bi mu chambre yi ba nopi mu jël ben décret 2002 ne 14 chambres yépp son membres kenn mënu ci génn kenn mënu la génné man mënu ma dàq Ben chambre ne boko tumé ben chambre mënut a génne ndax nañ fàtte na chambre c'est la représentation moomuñ ko en tant que président de Kaolack je représente des élus qui sont au nombre de 100. ces élus représentent les opérateurs économiques globalité biñ nous ñu waxtaan mu jox ñu raison ne d'accord nañ ne Dakar warul guen immédiatement dana jël décision yuko yuko war bind na lettre bi ba ko ko Dakar demande ma tamit sans délai

ba muy àgg ci processus boo xam ne kii jël décision bi pour waa ji mën a nekk secrétaire général ministre du commerce la kon yaakaar naa recommandation amul foofu wax ay nit nag nañ participer loolu weddiwuma ko ñaar la waaye ñaar yépp moom la gën a jege ci man su dee l'acteur secretaire général Chimère ñoom ñoo nekk ci chambre de commerce moo nekkoon directeur d'observatoire ou bien am na lu mu nekkoon foofu man dañ ma ko wax xamu xaw ma ko bu baax sax dañ ma ko wax ne ma nit ku baax la ma ne ko ma recommandé ko ne ko kooku na na soumissionné keneen ki ma xalaat benn nit boo xam ne ne ku xarañ la ci wàllu liggéey muy ku ñuy wax Cheikh Diallo mu nekk turki nekk nit képp xam ndax tey il est au service de l'État il est le premier conseiller fi mu jaar xam na ko yaakaar nga ne da ngeen xam kilifa la du xale jël na âge retraite sax dama ko doon wax mu jàppale ko liggéey ak moom mais kooku ba ma ko woowee sax dane ma man à l'âge de 14 ans laa xam Ablaye Sow mais mënuma liggéey ak moom loolu la ma wax 14 ans la ne ma ñoo bokk di jangano kon bu toogee ba léegi muy tudd ci média yi di tuddu koku dama yakane ñom ñaar dañu amone problème bañ nekké xalé ndax wax deug yalla mënon na am galanterie ne am na ko ma recommandé té du tuddu ci turam mu metti ma trop ndax koku kilifa la yakana def na lu mat 40 ans dans l'administration ay yeneen yi dama bëgg xol courrier bék dama fa bëgg bureau yakana yoy ay waxu chaxam wax bi am solo nañ ko wax wax bi am solo moy chambre de commerce Dakar depuis 10 ans, il y a un budget de 2 milliards. Le budget de la Chambre de commerce, c'est ce qui fonctionner, investir. La Chambre de Burkina, il a 14 milliards. Burki de Moula, il a 2 milliards. Le niveau de Burkina, il le a une euh, Joual, les Sénégalais, les Sénégalais, ils ont transformé le défi. Burkina, ils ont installé, ils ont transformé, ils ont nappé le défi. Sénégalais, il y a 2 milliards. léegi ñun li ñuy wax rek mooy chambre de Dakar ni dindi fonctionnement bi jël xaalis bi investir ko ci secteur privé et partager ko ak chambre yëpp mu mën a defaraat marché yi lakk defaraat lépp loo xam ne nii dana tax secteur privé parce que duñ créer chambre pour mu nekk loo xam ne nii da ngay dem ci port ba fay euh, nu mu pont bascule dem ko COSEC fay ñu di ko jox chambre ay ñoo xam ne nii seen société fayit na liggéeyatuñ